Euh, waaw euh, thème bi ñu doon waxtaanee tey euh, mooy xew-xew yi am ci Afrique ci jamono yi weesu. la euh, démocratie bi dañu gis ne dafa commencé sooxe euh, ci réew yu bari Mali euh, fi ci mel Guinée fi Burkina Faso ñun ñu génnoon ci ay jongante élection ñu ne avons nañu saytu suñu réew ñun gaa yàlla musal nañu am coup d'état waaye ñeneen ñi tamit ah, suñu ay mbokk lañu suñu ay naka la def ba jàngat li nga xamante pouvoir bi wax ah, ci loolu lañ doon euh, jéem a gëstu xool taxawaayu CEDEAO ndax taxawaay euh, bu mot la euh, c'est-à-dire est-ce que CDAO dafa war rek su coup d'état amee ñu dal ci ñu def coup d'état bi te xalaatuñu askan wi wala balaa même coup d'état di am CDAO ban taxawaay la mën a gën a am pour que démocratie bi gën a dox ci Afrique de l'Ouest waaw gis-gis bi mooy loo xamante ne dañ koy mettitlu parce que ku ne Mali ne Sénégal ah suñu sañoon duñu toll foofu wante nag mënuñu seetaan tamit réew ah, di jalgati yoon ah sart yi Mali dafa am sart CEDEAO am sart donc ku ko jalgati rek il faut que ñu jëm la delloowaat ci yoon ci nu mu gën a rafetee suñ ko mënee suñ ko mënulee nag ah yoon euh, ñu jëm la teg ci yoon.